bonjour bonsoir sama gaay bëggee naa leen bu baax di leen ziar te tamit di leen delloo ziar Da leen jamm ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 et comme d'habitude c'est votre sister Kenza j'espère que ndogu ngeen ci jamm ak salaam mais lutax bu ngeen di ndogu du ngeen ma wo. Fi dal pël kessé ñoo fi ndogu di woote <laughs> alors gaay tey nak dañuy ñëw wax ak yéen ci deux sujets premier sujet bi ci Hakill lay doon ci benn vidéo bu mu defoon ñu wax ci suñu analyse et tout et enfin deuxième sujet bi ci Junior benn jeune talent bu dëkk Grand mais avant de xuus ci ñaari sujet, yi veuillez s'il vous plaît abonner sur notre chaîne YouTube Kenza 221 et d'activer la cloche de notification pour les autres vidéos qui suivent léegi gars yi ñu xooli intro bi ñëwaat léegi léegi sujet yi let's go. ok sama gars yi comme ni ma leen ko waxee nag ci intro bi nee naa leen premier sujet bi ci Hakill la ñuy wax we ci Hakill kaana bi kaana bi kaana bi kaana bi yéen a ma gën naw ok bref gars yi gis ngeen temps yi benn vidéo wu Hakill bu circulé ci internet bi muy wax ci vidéo bi yenn kàddu yoo xam ne comme genre tëkku la comme genre gaaruwaale daal ces trucs du genre mais vidéo bi nag am na semaine y a sept jours xeyna tay la ci gaay di soga baye xel ci vidéo bobu ak tamit kàddu yi ci Hakill yëkëti ci biir vidéo bi Hakill mu ngi naan bu dara desee selu dul rap rek indi leen ko seen rappeur mu def ak moom featuring ku nekk jël benn couplet mu won ko ni du moromam moko dak rap mais gaay attention Hakill neena waxul ak n'importe qui ay moromam lay waxal waxul ak ñoo xamne mo doon corriger seeni texte moo leen doon jàngal rab naa leen booy jàppal dina baax te ñu ñëw di ko sànni picc ngeen bëgg mu tontu leen en plus ñooñu label buñ nekk tey moom moo leen fa yóbbu. léegi gars yi nañ dem xooli vidéo boobu bu Hakill bi ñëwaat léegi léegi ay ca bu dara non bu dara desee lu dul rap kase kase seen rappeur bu kum mënta doon na ñëw ñu def son waxuma sax nga def son sa côté ma def non na ñëw ñu def son ñu bokk son. ñu bokk son mu jël couplé ma jël couplé ñu rap kase ngeen jugé cooli li du bari sax coow li du bari sax but anyway rek rek rek mais nag ak samay morom c'est-à-dire samay morom pas ay you know ñoo xam ne you know maa doon corriger seeni texte rap ñoo xam ne sama néeg lañ doon ñëw ma leen di yokk doole naan leen fiis dina baax ba ñooñu quoi No. Sama néeg lañ doon ñëw sama néeg you know sama gàlle Grand Yoff cité millionnaire muy corriger seen i texte rap di leen yokku doole yëbb leen fu ñu nekk tey label bu ñu nekk tey maa leen fa yëbb man maa leen yëbb label bu ñu nekk tey ñooñu taxaw naan man dañuy wax ak man ngeen bëgg man moo tontu ñooñu mais nag ak samay moroom c'est-à-dire ok sama gars ñoo ko gisandoo gis ngeen video bi premièrement Hakill nee na ngeen indil ko seen rappeur ñu def featuring mu jël benn couplet seen rappeur jël benn couplet mu won ko ni du moroomam foofu moom Hakill am na ci plein droit xalaatam la wax ak lu mu gëm ego trip la rek. deuxièmement nee na waxul ak n'importe qui maanaam waxul ak rappeur yi nga xam ne moo doon corriger seeni texte moo leen jàngal rap moo leen yóbbu label bu ñu nekk tey. ba pare ñu wëlbatiku di ko sànni pik bëgg tontu leen waxul ak ñooñu gars yi wax bi comme genre gaaruwaale la comme genre tëkku léegi ba mu waxee lii nag ñëpp nee nañ BMJ lay waxal man mi personnellement automatiquement sama xel ci BMJ la dem BMJ la ma jox ni Hakill moom lay waxal parce que depuis ba Hakill quitté Reptile Music son bu mu génnee clash waa Reptile Music rek à chaque fois BMJ mooy jël defense tont gis ngeen seen clash bu fi jotoon na am clash bi tàngoon na jër Haykal def Reptyle Beach même pas 48 heures BMJ def Marwan Habibu boo leen dégloo songu BMJ Marwan Habibu bi mu ngi naan Haykal boo pare ñu dem Vibe Radio ci DJ Tall nga teg sa cachet ma teg sama cachet ñu rab ñu xool man ak yow ku dàkk rab loolu moo tax Haykal précisé ci vidéo bi ni waxul ak n'importe qui waxul ak ñoo xam ni moo leen doon rectifier seeni texte moo leen jàngal rab moo leen yóbbu label buñ nekk tey parti bi BMJ moo ko moom gaay Hegel parti bi mu wax BMJ moo ko BMJ lay waxal parce que ñu ko scientifique lay waxal moo doon jàngal BMJ rab dëgg la wala dëgg ah man franchement je sais pas xaw ma de nay leer wala moo indi BMJ reptile music indi wu ko fa pareillement je sais pas mais parti bi muy waxee n'importe quel rappeur ba wax ci rappeur yi nga xam dañ koy kon BMJ lay waxal Hakill moom jàpp na ni jamono bii moo dàkk rab BM Jaay jàpp na ni du moroomu BM Jaay du mook sax BM Jaay am na ci nag plein droit am na plein droit wax loolu léegi gars yenn lay laaj foofu Hakill ak BM Jaay jamono bii ñu toll kan moo ci gën a nekk au top kan moo ci dàkk rab ngeen teg ko nag ci cadre hip hop sama gars yi teg leen ko ci cadre hip hop. troisièmement na ay moroomam la wax léegi Hakill ñan la jàppee moroomam. bu xeebee BMJK xanaa kon dib dundu gis lay waxal foofu bu wax bi wiiri wiiriwul sama xel lu ma jox dib dundu gis la Hakill di waxal parce que clash yëpp dib dundu gis lay waxal clash yëpp dib dundu gis lay clash lu mu bëgg a wax foofa nag mooy na dib dundu gis ñëw ak moom ñu def son ñoom ñaar featuring ku nekk def coupleem ñu xool ku dàkk rab ci ñoom ñaar léegi Hakill nee na bu dee mën rab dong waxul succès waxul leneen waxul buzz waxul dara rab dongu rab kese kese moo leen dàq rab Haeckel loolu la wax léegi gars yéen laay laaj nan ngeen gisee li Haeckel wax pour yéen kan moo ci dàq rab ci ñoom ñaar question la rek nag fans Haeckel yi mën nañ wax ni Haeckel moo dàq rab Dip Doundou gis te du mujj fenn parce que nit ku nekk ak sa choix fans Dip Doundou Guiss yi mën nañ wax ni Dip Doundou Guiss moo dàq rab Haeckel pareillement du mujj fenn tamit parce que nit ku nekk ak sa choix nit ku nekk ki nga préféré en plus mën nga mën rap trop sax rap mën nga koo mën trop mais succès doo ko am ak boo ces du genre léegi gars yi yéen laay laaj entre Hakill et Dip gis Guiss kan moo ci dàkk rap na ku nekk wax xalaatam en résumé lii la Hakill wax ci vidéo bi pour ñu ko xamul woon ma expliquer leen leeralal leen yenn détails léegi nan ngeen gisee li Hakill wax jëmale ko ci BM Jaay ak Dip Doundou gis avo clavier claviers naa mu tëmb ay ca buñ jógee foofu nag euh, dañuy jàll ci deuxième sujet bi qui concerne Nunez Junior ci moom la ñuy wax. mën la jiite seen rap game bi mën la Nunez hey bi may nekk booy laa daan foowee ay clé de sol clé de sol sur clé de sol mais pression c'est télécole toog ci boppu koñ bi di tatouage ak vrai vrai con sur vrai con du boy poste c'est sene porn bu ngeen ma bàyyi na bëri ay cuccu naaw kaara du kaara kaara ma la nekk yóbbulul nga yàpp dambaaw cek cek wala ku dambaaw keex keex di do du sama kem beng sama suufu tàng sama suufu taat sama suufu daaw di nga bekk nga ko mënul ñaar ket ket di alors gars nous neen fi junior ben jeune talent la bu dëkk Grand Yoff Rapper la man moom bama ko commencer suivre comme mat na léegi 4 euh, mois Instagram laa koy gis euh, muy def ay freestyle yu nice freestyle yu dope gis naa ne nag yor na style bi am na talent te aussi mën na rab jobkat la mais le 9 passé génne na benn son qui a pour titre Moula gars yi ñu xooli son boobu di mula ñu xool ci un tout ñëwaat léegi léegi.

lu muy def léppam da koo jël miser ko ci flow bi booy déglu somam même boo déggul langage bu muy làkk ci biir sonwam flow bu mu yor mën na laa dugg moom ci côté musicalité bi ak flow bi lay joobee surtout ci sonwam bi man mélodie bi moom ci gën a neex right en plus comme jeune la mën na lu muy def te bëgg na ko yor na lépp style bi flow bi et tout gars yi kon mën ngeen dem suivre ko bàyyi ko xel léegi nan ngeen gisee Nunez Junior ak tamit selon vous lan lañ mën a xaar ci moom dans quelque temps lii nag laa leen indiloon tey sama gars ñu doon wax ci deux sujets premier sujet bi ci Hakill ci vidéo boobu ñu doon éclaircir un tout petit peu et enfin le deuxième sujet ci Nunez Junior bu leen fàtte abonné ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 et d'activer la cloche de partager et surtout de liker ngeen bu leen fàtte tamit jël seeni matuwaay ci feebar bi di Covid 19 takk masque yi toggale topp ndigalu médecin yi yéen ma gën naw peace seen love sama gaay jàmm ci ñëpp te di leen ñaanal kooru jàmm ak salaam yesaay